mbokk yi dañuy digg ci biir rek xool yenn régions yi nga xamante ni mbokk yi yaakaaroon nañ ni war nañoo mën a dem ku ci mel ni Thiès tey nga xam ne Ablaye Ndiaye doomu Robert moo fa nekk waaye perte nañu équipe bi. dañuy dem ñoom ñëpp dinañ leen jéem a dégtal waaye mbokk yi ñu jéem a xam ni équipe bu nekk dinañ jéem a xool capitaine bi waxtaan ak moom lan mooy jafe-jafe équipe bi lan la équipe bi gën a bëgg lan la équipe bi manqué Adama Kaay let's go let's go kan mooy seen capitaine yow kan mooy seen capitaine ah. baa du Eumeu Sène yow xamoo kuy sa capitaine. ndax mu ne Eumeu Sène mooy sama mag. Eumeu Sène mooy sama mag. waaw Eumeu Sène Eumeu Sène mooy sama mag. Eumeu Sène bii mooy ñaata yoon muy ñëw. non bii mooy première fois. bii mooy première fois muy ñëw. waaw mais yow bii mooy ñaata yoon muy ñëw. deuxième fois. bii mooy deuxième fois maa capitaine bi nag. maa ko yor. <laughs> nga la. non non yoru yoru ma la. Ah. waaw mais yéen lan mooy seen jafe-jafe. parce que gis nañ équipe bu ci nekk bu ñëwee dafa sol ay loisir yu rafet am taxawaay bu rafet metre leen à bonne condition yéen est-ce condition yooyu am ngeen ko. non non amuñu ko parce que vraiment Ziguinchor moom gars yi neexul waa rek waaye luy def nii rafetul amul regroupement amuñu dara dara di nga xam ne man Dakar lañ ma woo yaa nga ma Dakar n'est-ce lañ ma woo. ma ñëw ñaama ñu leen tase fii Diourbel te loolu rafetul. yow kon Dakar nga jógee ñëw Diourbel direct. Dakar laa jógee ñëw Diourbel ànduma sax ak ñoom ñoom Casamance lañ jógee man Diourbel laa jógee kii Dakar laa jógee Malick Ama Sène ak booy booy booy booy Mulam te loolu rafetul billaay la gars yi dañoo war a def lu baax pour ñun ñu mën a avancer. préparation wàllu mystique parce que ku ne xam na ne chef de dafa garaaw ci wàllu mystique préparation mystique nan nga def ba préparer. sama xaalis laa jël kenn jox ma avance kenn jox ma dara. sama liifu bopp ji nga yéen indi sama jëmu bopp maa indi boo ñëpp suñu suñu équipe yëpp ñuy sangu te loolu rafetul fii foofu la ñuy sangu te loolu maa maa udi maa indi butéel yi comme Ziguinchor région bu Ziguinchor nga xamante bu Ziguinchor ku nekk war indi butéeloom nii kenn indi bu kenn kenn kenn entraîné xam nga lii moo tax ñuy éliminé dem trois jàpp misuñu entraîné trois jàpp yi dañoo fii si lamb ñi soog a def trois jàpp yi xam nga te loolu baaxul waaw dem bare naa trois combats. perte ñaata. trois yëpp laa ñëpp xamewuñ loolu dafa mel ne racromasel bu bajaana bañ doon gis ñëwul de ñëwul. ñëwul dem waaye waaye damaa dem ba si dernier combat bi maa diggante maa ngi rajaay si laa commencé gis affaire yi ni ne voilà si laa commencé ñëw. voilà c'est trop tard mais tey kuy xool lacrymogène na ko xool bu baax si kaw bi tey fii naa doon koy jël ah. waaw waaw. 100 kilo bi 100 kilo bi ah. kuy ñëw rek maag moom la. aca waaw yaa jëfati mbër waaye ziar yaa ngi jàmm maa ngi jàmm baaba ama bajaana mais ëmma yéen kan moo ci capitaine ñu euh, bon suñu capitaine bi moo nekk nii moom moo dèjà poids bi lañ jël comme moom mooy nekk suñu kii bi. koo ci laaj mu ne ah. dafa mel ni équipe bi. Ah. préparation bi bi biñ doon séentu ci. Ah. ci dëkk bi sax gisuñu. waaw boo xoolee boo xool amuñu équipement comme yeneen yi. non c'est préparé individuellement. donc euh, tey jii bu ñu représenté Ziguinchor suñu cadre yi nga xamante ne ñoom euh, la ñu représenté fii nii ak suñu mbokk yi nga xamante ne ñoom i Casamance ñoom ñoo naroon def ay effort pour ñu dimbale ñu suñu encadreurs yi tamit dañoo naroon def benn pas bi nga xamante ne envers les autorités comme ça gars yi dimbale ñu déjà suñu préparation bi. on avait des des parce que man maa ngi étudiant laa su ma demee jàng ba ñëw ba door dem salle de salle salle bi nekk salle de combat mooy tapis bi fu ñuy jaafee euh, lutte olympique donc je faisais seize kilos moom war def quatre donc xam nga loolu dafa metti damaa dem ba damaa wàññi ba sama mus ma sentir ne j'ai j'ai faiblesse au niveau des muscles au niveau des articulations même boo laalee sama articulation damay day mel ni paak nga ma jam comprends alors après on a besoin des concombres et des tomates parce que loolu noonu mooy tax doo am mais quand on nourrit le corps amuñu ko amuñu benn aide quoi donc. Euh, ñun seen euh, maire seen maire kan la maire Ziguinchor kan la. Ziguinchor bi Ousmane Sonko comme il vient. bon je ne sais pas parce que man maa fii Dakar. Euh, ils ont dit qu'ils ont écrit un courrier vers lui mais on a on a on a rien après. est ko ñaanal mu jéem a jox maire bi keneen pour keneen ku fay ñëw mën a jàppale équipe bi parce que équipe bi am nañ yaakaar. non non non non non déjà il vient de s'installer te voilà bu nekkoon si il avait duré là-bas peut-être on allait on allait on allait peut-être euh, avoir des mots à dire mais il vient de s'installer bon ñooy bàyyi ba déwén rek ñu gën a préparer woo balaa amewuñu kenn nag kenn nag parce que on a confiance waaw li li gën a am important mooy ñëw nañu assister nañu. voilà démb on n'a pas démérité pour euh, la qualification des par équipe mais tey jii on est on est là on est venu voilà avec force avec sang-froid pour euh, euh, les individuels aujourd'hui voilà man maa ngi remercier tey waa Taïsinga bu baax a baax voilà di nuyu remercier étudiants yi nekk euh, Cheikh Anta Diop surtout wa INSEPS waa Kekendo di nuyu waa Casamance yëpp yëpp yëpp yëpp voilà maa leen ne ñu ñaanal ma tey jii si catégorie 86 kilos bi ma jël ko. jaajëf Sane allez jaajëf. ci kan laay njëkkee bàyyi ma njëkkee ci ngay. nga siyaar naa. waaye naa gis. waaw maa am jàmm waaw. man kawlak Kaolack. Mhm. bi mooy ñaata ren moo koy defal deux fois. daaw fan rek. Mhm. Euh, mooy seen problème yéen waa dara. daal du suñu problème pare nañ pour lépp quoi. Ah. Mhm. am am nañ lépp. waa gis nga. Ah. loolu la yàlla saa yi ndax. Kaolack lan la manqué manqué wala dara. non loolu moom il faut nga laaj ko gars yi. jàppale yi doy na man dama bëgg a xam ba xam jàppale yéen mbër yi fa nekk acteur principal yi ba xam jàppale bi ñu war a jàppale. laaj ko gars yi quoi. mais yow li ñu la war a jàppale jàppale. non laaj ko gars yi quoi. ngañ ñëw na. ñëw naa waaw. ngañ ñëw na ci làmb ji la ñëw ñu gis vrai ngañ seen. waaw gis nga ngañ ñëw na waaw. baax na dara ah, <laughs> ok merci waay. oui fay naa la jëlee. waaw sant naa baax a baax alhamdulilah man maa ngi nii. waaw maa ngi doon ak si waay. kañ nga Dakar ñëw. nañu jeudi jeudi Dakar. Hmm. wax dëgg fii laa korite moom. non Dakar wax dëgg yàlla. waaw bis yu mujj yi mu fekk Kaffrine. waa nekk ci affaire rek yaa xam gën xam. ah oui bien waaw naaj moom wax dëgg yàlla ñuy sant bu baax waaw sant nañu baax moom mais dañu wax maire Kaffrine bi sànq rek ñu ngi koy wax pour mu ñuy dolli jàppale bu baax a baax baax. Hmm. mu lay dolli jàppale bu baax a baax. Hmm. am na benn mbër bu fi waroon bëri moom dafa tardé de yéen fan ngeen nekk ba tardé. loolu yëpp ñàkk moyen la ñàkk moyen ak ñàkk jàppale rek ndax bu ñu jàppale oto du ñu téye fee oto ñu téye xam nga waaw dañu wax maire Kaffrine boo lëggee mu jàpp ci baax a baax parce que ñu dañ lii dafa rafetul quoi benn. démb demi finale bi daa mel ni ñàkk ngeen euh, demi finale bi vraiment yaa seen diggante ak dakaar te ñu bari yaakaaroon nañ ni war ngeen a mën a génn ci compétition bi lan moo leen ñàkkloo. non làmb la rek xam nga làmb moom bëri daan la ak daanu rek. waaw boo dem moom ndam nga yóbbu après lu yàlla def. waaw moom la ñu wax dañoo def 2-2. waaw moom la wax bëri daan ak daanu la ba ñu ñëw daan la ñu indi woon. Ah. waaw mais ñooñu yàlla wet dañ koy sant yàlla rek. da ngay dem ci compétition nit traditionnel yi di bëre di ñàkk di kii mais démb dañ la daan ngay jooy toog ci digg géew la la. non lamb la rek lamb la rek lamb bi demee noonu rek. Ah, lamb la rek. mais fii nga Batlen mi ñu doon séntu ci lamb ñëw na. waaw naaj kay. naaj maa ngi baax waaw incha allah. ayca fils de Batlen kaay. <laughs> waaw sant yàlla ah. parce que maa ngi représenté Louga c'est la première fois tey waaw. c'est la première fois nga ñëw chef de la. non non dis-moi deux fois. njëkkoon naa ñëw 2016 mais bii mooy sama deuxième euh, ñëw waaw 2016 maa ngi maa ngi représenté waa waa Matam mais bi ma deuxième bi Louga laa représenté waaw sant yàlla ah sant yàlla parce que gëjoon naa si ñëw naa affaire yi bi moom neex na tuuti neex na neex na tuuti daal waaw tane na affaire yi parce que jàppale bay waaw waaw waaw jàppale waaw ñun laay wax sax mais yenn dëkk yi moom seen jàppale neex na waaw waaw du ñëpp du ñëpp le waaw du ma ñëpp na le ñun daal sànq bos moo xam naa ko moom waaw mais bëgg naa nag bu beneen yoon ne dëkk bi ñuy représenté autorité nekk foofu noonu ñu jàpp si quoi waaw ñu jàpp si parce que parce que résultat day nekk lu yomb waaw ñu si gën a jàpp quoi. Adama kaay dañuy daw